nous ni woon 1er décembre 2018 livré appartement yi 1er décembre 2018 jot jotuñu suñu yëf décembre 2019 pareil parce qu'avec les élections ma ne woon peut-être élections yi moo tax mënuñu mais élections USO weesoo jotoon naa wax ak directeur commercial bi mu ne ma wéy li des mooy fii nii ci euh, assainissement bi moo des daal mm-hmm. léegi bi ma

Il a même fait visiter là-bas le président euh, Barrault, président de la Guinée, le président du Portugal et pas mal de présidents Il ñëw a ñu ne dañuy def pôle urbain de Diamniadio ñu ni aussi tamit comme loolu la dañuy appelé, suñu réew On tax ñu dem jënd fa appartement mhm. Mhm. mais depuis lors à chaque fois je suis au Sénégal ça fait deuxième fois ce mois d'avant, ça fait deux fois ou trois fois mais mënuñoo fexe ba jot ci appartement est obligé de faire location et puis j'ai amené des conteneurs pour avec des cuisines équipées et tout ça. Mm -hmm. mais damay obligé louer box pour def ko ci. ça fait deux ans je paye tous les mois Sur mon autre tamit maa ngi ko loué une box du coup faire tous les mois pendant deux ans déjà mënuma fexe ba jot ci kër yi. léegi daal euh, may woo pour ñëpp ñoo xam ni ñu ngi bokk ci kër yi. Mhm. ni leen bu ñu mënee ñëw ñu def collectif pour engager une action contre Jethro Vous faites ni sax assainissement rek Moi, des au moins da nga gis appartement yi pare na il yi tu vois avec euh, le supermarché bi waxoon da koy faux pour que vous ñu une course. suñuy courses. ay des noonu mais y a rien qui est fait Rien defuñu ko fa même Esther ministériel yi mu faire a defar donc pour dire que nous, vous faites fa demee ay gardien la fête. par contre il euh, il y a deux promoteurs ñoo xam ne bon bugguma wax seen tur mais boo demee seen liggéey ñu ngi avancé parce que dem naa ba visité ko. Mm-hmm. tu vois seen liggéey yi am na kër yu am na yu livré nañ déjà treize maisons là-bas. Mm-hmm. beneen euh, entreprise bi ñoom ñu ngi tabax boo fa demee mais j'ai vu j'ai filmé tout ñëpp ñu ngi liggéey mais j'ai trente kenn nekku fa kenn liggéeyul. Mm-hmm. dem naa fa ñaar yoon gisuma fa personne qui travaille. je me suis dit kañ la ñuy jot suñu kër yi quoi. parce que il doit avoir euh, un problème quoi.